nuñ leen bu baax di leen ziar yéen safoo Dakar Buzz TV tey nag ku ñu gis xam ne dox nañ ci naaj mais population bee ñu ko jaral ñu génn rek daal di doxantu ba fi nga xamante ne mooy marché Gueule Tapée rek jéem a xool prix soble yi ñu naan yokku naam yokkut ñi naan sac ba 50 000 40 000 dem ba ci am ay clients yu naan 800 la ñu koy jindee ak 1000 francs mbir yi daal di jaxasoo loolu moo tax waa Dakar bés nag ñëw ba fii ci marché bi parce que yéene ñi nga xam ne ñooy jaaykat yi ak jëndkat yi xool prix bi fan la toll jamono di jibi nañ daal di dugg rek ci marché bi xool prix yi fu mu toll. sëñ bi nuyu naa la ziar. waaw sant naa la fay naa la sant la. tur bi naka la. ah Gora Gueye. Ah, Gora nga fii ci marché bi est-ce que am nga soble. soble day gëj naa kaa am maa ngi koy fekk di am tey jii boole ko ak lool sax waaw ah, te wax dëgg yàlla war naa mën a ñàkk buñ bàyyee ba suñ soble jeex kon soble bi war naa mën a ñëw sans benn problème. waaye fi nekk nii am ko jafe na jaay ko jafe na wax dëgg yàlla waaye kooku moom naka Macky Sall yëg ko ànd ak Macky Sall yëg ko lii moom jekkul jaaduwul rafetul tamit suñum réew waaw réew moo xam ne dem bay nga jënd kilo sable mille nangam wala neuf cent huit cent rafetul wax dëgg yàlla. bi li ñuy wax ne mu ngi ci cinquante mille ak quarante. moom c'est amul. kooku moom gars yi ñooy bippe di wax ni rek waaye amul. mais bu kilo non vingt cinq kilos lay def sable vingt cinq kilos lay def ñu ngi koy jënd dix huit mille instant bi ñu toll waaw fi mu fi toll nii nii nii dix huit mille lañ koy jënde kooku boo ko jaay yaa koy jaay ñun ñu ngi détaillé huit cent franc waaw. moo nga am si mu di mu taxawoo vingt mille franc léegi yow nga am mille cinq cent wala deux mille rek waaw. ñu gis ni soble mbay mi amoo leen ko ren soble importé. waaw soble mbay bi moom jeex na semaine bee ñu paase jeex na. tableau importé bii daal moo fi ko moo fi moo moo fi génn fan yi bu demee ba naan consommer local ñu toggul ci jamono joo xamante ne ñu jëm ci événement te soble amul Sénégal loolu ban jàngat ngeen ci am. waa réew mu doy rek maanaam suñu mais suñu ñi suñuy njiit tamit ñu xoolaat seen doxalin ndax dafa ne askan bi li ñuy live ni tar na trop métti na trop ndax tamit li nga xam ni dépôt dèjà rek li doon ñore suñu réew rek ni mu doon demee waru na demee. lii tamit daawul demee nii lii c'est la première fois c'est la première fois lii mi ngi soog di am ndaxte soble bii bu musaa moom une semaine rek mu wàcc waaye fi ne soble bi da nga yor sab xaalis sax te doo doo ko mën a jënd te man li ma metti mooy li ma jaaxal mooy benn ministre waxu si amul benn autorité boo xam ne yaa ngi siy jóg di wax xam nga kon man réew lañ nekk kon dafa mel ne ñoom nekkal lu fi seen bopp lañ nekkal pour man loolu noonu laa gisee daal lu dëgg ndaxte buñ jógoon def benn ku nekk mën jot soble waaye fi ne déggoo kenn ko wax te tamit mënoo Sénégal defe naa ni mu mel sable ku ne xam na ko booy ndekki soble reer soble añ soble waaw soble moom moom la ñuy dund 100 pour cent kon nag war nañ see mën a jàpp war nañ see mën a jàpp waaw. da ci magasin yi doo am soble yow. waaw magasin yi waxuma la waaye pàkk ba magasin yi sax dañuy ñëw si pàkk bi duñu am bu soble si pàkk yi lay wàcc. soo ko tasaaroo si magasin yi waaye fi nekk nii réseau bi mag bi nga xam ne nii mooy paak bi fi nga xam ne fi la conteneur yi di droité foofu sax fi nekk nii jóge nga fa ñaari saako soble sax wala ñetti saako soble nga fay gis waaw négatif di yoon. yan méthode rek yaakaar ni moom la ñu war a jël pour lii di gëj si maanaam génn taxaw xam nañ le xam nañ ni mu demee ndaxte soble bi fu muy dugg xam nañ ko fu muy génn xam nañ ko dañoo taxaw di seetaan taxaw di seetaan askan bi nag loolu moo dul yoon ba suñu réew. néew ju doole moo ëpp ñu fi am doole te ñum réew kon nag war nañoo mën a génn sa port gi lay génne normalement war nañ see mën a taxaw cent pour cent sable ku si bëgg a jot jot maanaam kon nag dañoo seetaan léegi ñi am doole di def leen neex commerçant yu mag yi ak ñiy gën a conteneur yi loolu mooy lool loolu mooy li fi nekk wax dëgg yàlla. waaw sa yi du ñu ñëw war a jënd soble mu ñu bàyyi. da dul am yenn saa yi ñëw wax client mun na nga ñaata nga ni ko huit cent franc da day yéemu. naan mi fun jëm te c'est vrai huit cent franc sab dépasse la mooy loolu boo si génnee ñaari kilo waaye trois kilo quatre kilo sa xaalis jeex na ah te leneen ñëwagul xanaa soble dong doo ko baxal noon teg ko a ah, noonu lay dem client yi dañuy ñoo la gën a sax da nga leen mujj sax yërëm da leen mujj sax yërëm wax dëgg yàlla kilo soble huit cent te pareegul de soble mën naa dem ba mille nangam ba mille nangam ndaxte maanaam gisoo dara lu ko adeer lépp sa waay kenn ñëpp ñëpp dañu teg dara yëngatuwut mën naa dem ba mille nangam ar taxawagul de ar boo dee xool semaine bi rek yokk nañ ci soble quatre mille francs ba muy soog di mi ngi doon jar quatorze mille quatorze mille dix huit mille dix huit mille si tey ndaxte lënd bee paase la génnoon tey la lëndi mi ngi kon quatre mille francs 4000 francs ba ba mu départ ak léegi diggante bi 4000 francs ci une semaine loolu négatif du yoon. sëñ bi ngi lay nuyu di la. ñu ngi lay dalal ñu ngi am naa ko de waaye sonn naa avant ma koy am de waaw euh, sonn la temps ma koy am euh, depuis soo ba léegi benn conteneur moo fi wàcc ci marché bi nit ñi dañ ko doon njëkkalante ay xeex ak ay euh, xuloo sax da nga koy gis ci conteneur bi tey suuf ay 7 heures da nga mujj bàyyi sa place client taxaw di la xaar nga dem wëri soble da ngay dem taxaw ko 2 heure de temps sutura tax nga am soble benn saako soble ay 19 ko gis c'est la première ko jaayee kilo bi ñaar ah may loo koy jaay kilo 1000 francs nga ko mën a jaay 1000 francs rek nga nga ko jëlee ay 19000 1000 francs rek nga ko mën a jaay pour am ci benn 1000 francs sax du mat ndax boo xoolee mbuus yi ngay jël di ko ci def PC bi des balance yi mooy loolu day jël wàllam euh, boo ko xoolee fi toll nii moom liggéey bi xëy na ñàkk bañ toog rek moo ci bàyyi mais euh, bi pa dafa gën a critique ci soble bi lan mooy exactement problème ah xëy na ci suñu ministre de commerce yi ñu am defuñu seen rôle seen liggéey en 100 pour cent da di jaayee lu la war a jaayee mais da toog dégg ci rajo bi kese ñu naan ministre de commerce bi nee soble li ngeen ko war a jaayee te xamuñ lañ ko jëndee loolu yanul maanaam di leen wax prix bi ngeen koy jaayee te si jéemoonu saytu tamit prix bi ngeen koy jëndee loolu voilà yow xamoo ñun la ñuy jëndee nga bëgg a wax ñu lan ñu wax li ngeen di jaayee nga wax li ngeen di jaayee chaque fois dañ ci am ndax da ngay dégg jigéen ñi ci marché bi sax naan démb dégg naa si télé bi wala dégg naa ci rajo bi nee lii ngeen war a jaayee soble soble bi nee nañ wàññi nañ ko état bi def nañ def nañ moo ne suba ba léegi lu toll ni marché ko tàpp benn conteneur nit ñi ay xeex nga fay gis ci suba si wallaahi trop parfois sa client du ñëw nga war ko soble bi cher mu mujjee koo bàyyi parce que ku war a togg yaasa di soxla 3 kilos wala essence moom yaasa moom xanaa feneen lañ koy toggee mais du essence soble bi ne la dooma dimbale nga jaay soble ma doo ko jaay lu dafa métti moom mu gis soble bëgg ko nday sant du ko am ndax yow soble yow am nga say client yoo xamante yi nga taxaw nga ne leen kilo 1000 francs lay jar ndax duñ sa client keneen ñëw nga jaay ko ko 800 wala 500 day métti ci moom itam affaire yi fi toll nii dafa jaxasoo lekk nga yaakaar ne mooy méthode boo xam ne buñ ko jëlee di soble dina amaat ci réew mi tamit prix yi dina wàññi ah mais instant bi moom xanaa ministre de commerce bi jéem a ak importeur yi ñu jéem a xool nan la ñuy def trouver solution bi ndax instant na trop métti na si yi métti si jëndkat yi na trop instant bi sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. Euh, maa ngi leen di fay di leen dalal bu baax. Euh, Babacar Diop commerçant responsable parc gros légumes bi nekk Gueule Tapée. Euh, tonton Babacar bëggoon nañ xam bu baax prix soble bi rek fan la toll. waaw prix soble moom fi mu toll neexul définir quoi parce que bala ngaa définir prix da ngay définir loo xam ne am na sur le marché. waaw xam nga oignon bi actuellement ni heure bi daan na fekk day bari te d'habitude li ñu xamoon ci oignon mooy heure bi local mooy am mais locale bi ren dafa xaw a gàntu maanaam mbay mi dafa gàntu rendement yi ñu doon xaar yëpp amul moo waral sax ngay gis soble tubaab bi ñu lever gel bi comme ça soble tubaab bi mën a ñëw ci dëkk bi man ñu mën ko servir population bi mais soble tubaab fekk na fa muy jóge moom it am na problème parce que foofu seen récolte yi pareegul carrément te puis prix bi cher na fret bi cher na li li mu boole lépp daal dafa bari moom mooy waral ngay gis tey ji approvisionnement marché bi am ay jafe-jafe. Hmm. saako soble toll ci ñaata jamono ji. bon saako soble moom xam nga bu ñu ko fekkee prix bi jaay nañ ko normal mais xam nga nit ñi tamit kenn mu leen fixé un prix boo xam ne ci marché bi boo xam ne amul ku ne da nga ciy def li lii la soob ak li nga xam moom moo la doy rek mais prix soble moom fi mu li ñu koy jaayee nii du prix soble réel bi. du prix soble réel bi marché bi moom moo woote loolu rek nit ñi lu amul rek dañuy expolier prix bi di jaay prix yoo xam ne daf leen a neex sans contrôle nii rien donc kon ku ne ñu bàyyi la ak sa bopp ci marché bi ngay def lu la neex rek ak nit ñi tamit soxla nañ ko ki am soxla moom boo ko nee fukki junni sa dee jënd mais saako soble fukki junni saako soble vingt mille saako soble yooyu yëpp du prix soble waaw nit ñi ñooy def noonu rek ci marché yi mais prix soble réel bi réel bi réel bi daal su ma doon dox benn fourchette. Euh, douze mille cinq cent treize mille treize cinq cent daal mooy prix normal bi waaw. treize mille douze mu dem ba ci cinquante mille loolu naka nga ko jàngatee. waaw mooy li ma rek xam nga tamit euh, maa ngi koy wax keroog ci benn média il faut que nit ñi apprendre di sanctionner wala ñu am tout esprit de citoyen quoi nit ki am na marge bénéfice boo xam ne dafa xajul ci soble. waaw ah, ñu man soble li ma ci xamoon marge bu mag a mag a mag boo dee ba mu mag téeméer la cinq cent francs mais bu ñu demee ba nga xam ne nga am yenn marge yi di multiplier prix yi par quatre di ko multiplier par trois xam ne loolu def lu la neex la j'aurais bien aimé ne comme niñ ko defee Touba keroog bi coow lu jógee ñu def ko ci yeneen région yi def ko à Dakar parce que les services du commerce tamit xaw ma nag seen éléments yi doy na wala doyul ñuy wàcc terrain bi di xool euh, ñaata la ñuy jaay sol bi ci marché bi euh, man di réguler prix bi au moins parce que lii oignon importé la neex na réguler waaw bu ñu génn ci marché bi rek gis képp kuy spolier yi nga xam dangay def benn inflation bi ci prix bi ñu jéem la teg ay daan parce que il faut que ñuy sanctionner quoi bu nit ñi mën a arrêter encore une fois def li nga xam moom mooy yoon. bu fekkee ni euh, kilo soble dafa dem ba ci 800 wala cent kër goo xam ne ñoom bu ñuy togg yaasa wala soos day dem ba ci 4 kilos ñooñu bu ñëwee di jënd naka la ñuy dundee. non ni nga koy dundee lañ koy dundee parce que ñun ñëpp kër la ñu yor ku nekk da ngay xëy bàyyi dépense sa kër. man mii dama naan yor soble mais tey yoru boo dama kër ga tey soble nekku fa sax donc kon dafa nekk mbir moo xam ni man jigéen ñi yenn saa ma gis leen mais dangay am benn kersa bi sax pour wax leen yenn prix yi waaw da ngay am kersa pour wax yenn prix yi parce que xam nga ni jaaduwul te dëkk bi àttanu ko pouvoir d'achat bi attanu ko donc kon lenn lu xew la tamit ci àdduna inflation bi dafa wër àdduna parce que li ngay jéggaan yi dem ci borom mun la at man li ma la daan jaay mënatuma laa jaay lu toll noonu wala prix bi tit dafa changé donc kon da ngay obligé adapté wu waaw parce que ñun suñu soble jeex na soble Hollande la ñuy jaay soble Maroc te donc kon prix bi nga koy amee foofu rek nga ko mën a jaayee Sénégal donc kon li koy wax toujours mooy il faut que ñu def langage de vérité wax nit ñi que ni soble actuellement yombul ci àdduna bi waaw soble nag li may wax toujours du du du lekk gu. boo xam dafa nekk ci nit ki loo xam ne loo xam ne boo ko amul tey nga dee waaw ku ko amul tey nga dee soble li muy àndal lépp cher na te ku am njëgu ginaar am njëgu leneen wax dëgg yàlla boo ñëwee ñu tegal la yenn kilo soble ya prix prix prix soble war nga ko mën a jënd bu fekkee sonaloo la nga bako dafa bokk nag suñu habitude alimentaire Sénégal waa mais nag prix bi ma lay wax nii moom vraiment cher na trop trop trop trop te nit ñi war nañ ci xoolaat seen bopp. les service du commerce xoolaan marché bi réguler ko ku nekk ñu teg la ci yoon parce que commerce bi léegi nekk dafa lu la neex waay neex def ci lu ci soble kese yëpp la lu manqué rek ñu jël ko yóbbu ko foo xam ne vraiment dëkk bi àttanu ko poche nit ñi àttanuñu ko. commerçant ci biir ñoom ñooy def non non nit ñi la rek mooy li may wax toujours ñun acteurs yi la kenn defu ko ki yor xaalisam ñëw di jënd moom xamul dafa sox am soxla ci soble di ko jënd mais yow mi ciy jaay di ko liggéey. yow yaa war a xam benn baar boo xam ne c'est c'est possible lii kii nag nga jëm ci ak taxaw ci baar boobu mais nag bu nit ki soxlaa rek nga ñëw nga ni ko amul dama koy jël yokk ko ah ba d'une manière boo xam ne vraiment da nga xam ne lii jaaduwul abusé ci tamit day doy waar day dem ba ñoo xam nekk ci filière bi yow da ngay am kersa sax vraiment pour mën mooy déggee Touba loolu dama am kersa sax ci lu ci ci ci ñenn ñi ni ñuy doxale wala ni ñi def parce que damay leer lañ jaay cinquante mille wala quarante mille donc mënoon nañ ko jaay lu gën a yomb loolu nit ñi utiliser ko ca teewul yi dañu am dara donc kon na barkeel rek moo gën muy bari daal. bu ñu demee bay importe soble mu daal di cher lool ba askan wi mënuñu koo jënd wala yéen ñiy jaay sax mënoo leen am saako lan mooy problème bi exactement parce que Sénégal heure bi daan na fekk soble mbay mi bari fi lool. waa xam nga soble mbay heure bi daaw ñu ngi jeexal septembre la soble mbay jeex ak problème yu bari nag mu yàqu ñuy gas di suul ak yooyu yëpp ren nag. soble mbay bi am na ñu bëri bayoon nañ daaw ren bayuñu parce que daaw dañoo gas suul seen soble perte nañu banques yi topp nañ leen bor leen lebaluñu leen mu am ñoo xam ne tey jii emblavé nañu ay surface yoo xam ne tey jii noonu lañ ko wane ginnaaw ñax mi nangu na ko amuñu luñ xeex ak ñax bi ba nga xam ne soble bi dina mën a évoluer dañoo mujj a bàyyi noon tool yi dem donc kon aléa yooyu yëpp nga dem vallée bi nga dem ci ñaay bi nga dem ci gànjoole bi foo dem tey dañ naa soble rendement bi ren baaxul waaw donc kon rendement yooyu day répercuté wu ci ci camp ci campagne bi moo waral tey jii bañ a bi ñu commencé août cinq août 10 août rek soble Sénégal bi jeex ñu lever gel bi gel bi bi ñu ko levee nag vraiment Hollande tamit dafa am benn problème boo xam ne nit ñaa ngi ciy bëgg a jot ñu ngi ciy jot ak fret bi fret bi tamit dafa cher léegi rotation bateau yi gaawatul depuis corona yi ba léegi yooyu yëpp nag boo ko ciy boolee day nekk yoo xam ne ñun Sénégal tamit comme que ñun dañuy jéggaani boo jéggaani na vraiment fi nga dem di jéggaani la nga fa fekk rek nga adapté sa pays mais mënoo ni soble aw aw soble dem jënd soble Hollande damay ñëw jaay ko bu ma neex commerçant bi dem def effort bi am say montage financier dem jënd ko ñëw dafa bëgg dara moom tamit loolu moo ci nekk. ñu ne ñu ñu consommer local ñu manqué soble manqué yeneen i biir sax donte tey soble moom moo ñu yëkkati est-ce que jotul ñu jël ay jumtukaay wala ay mbir yoo xam ne dina faciliter nit ñi mën a jot ci dund gi bu baax a baax. matukaay yi ñu war a jël Sénégal mooy li toujours. dañuy mettre les charrues avant les bœufs daal moom parce que problème soble yàgg na yàgg na trop liñ ci war a def lépp autorité yi cerné nañu ko acteurs yi cerné nañu ko filière bi cerné na ko xam nañ ko mais exécution bi moom moo yéex parce que année bu nekk ñu revenir en arrière di la wax yoo xam ne sama waaye waxoon nañ ko daaw wax ko daaw jéeg ca ba ren mënuñu ko eff mu nekk lu xam lu effectif la bu problème amee rek ñu wut solution mais du ñu jéem a anticiper ci problème bi mukk mukk mukk dañuy xaar ba problème di kat yi doon ñu wut solution te loolu def war a jeex nag Sénégal xam nañu li muy consommé ci soble am nañu benn gap de cinq à six mois yoo xam ni importation la nañ ci liggéey liggéey bi mooy wut ay semences yu baax wut infrastructure yoo xam dina mën a garder oignon bi transformation wala stockage ak yooyu yëpp. defar système de commercialisation bu baax su ko defee nit ñi doo ci am problème même booy importer sa bu boobaa gab bi dina wàññeeku de six wala cinq dem ba deux mois comme ni pomme de terre bi mais pomme de terre léegi vraiment am nañ ci ndimbal bien vrai que du Sénégal ay nationaux yi ñoom ñoo ko ñoo ko def mais am na fi ñoo xam investi nañu investissement yoo xam ne tey jii gab bi wàññee nañu ko parce que les pommes de terre importation deux mois la mu jeex soble mën na àgg foofu bu ñu réduire les pertes rek sa perte yi ñu ko réduire ñoom ñëpp acteurs yëpp xam nañ ko. donc il faut passer à l' essentiel privé yi dugg ci état bi dugg ci ni muy état bi di defee ay partenariat public privé mu def ko ci oignon bi def ko fañeen ak fañeen su ko defee ñu mën a cerner suñu consommation duñ ko jéggaani fenn. ak màggal gi di ñëw sama mbokku taalibe yi dinañ soxla soble gu bari est-ce que xalaat nga ni balaa boobu soble gi dina am. waaw soble moom ala kulli dina am xanaa kay ni mu doon doyee du gaaw doyee parce que bi dañu mar soble. boo demee au fin fond de Sénégal am ñoo xam ne ba léegi suñu soble gis amuñu ko Dakar gi am na xam ne sax ne pour ñu jaay soble sa problème la donc kon dañ def kémtu lay kattan ba nga xam ne màggal gi day am soble moom dina am soble mais à quel loolu rek moom moo ci moo ci moo moo matal kii moo ci problème waaw. lan rek ngay dénk ñi nga xam ne ñooy ñëw di ak commerçant yi tamit xam ne ñoom ñoo am soble di ko jaay. dal situation bu ñëwee ci réew mu ñëw ci dëkk da ngay dal donc kon dal gi mooy. ñu xam ne lii situation bu inédit la man maa ngi koy doog a gis ci soble ba ma nekk ci soble ba léegi lii maa ngi koy doog a gis donc situation bu ñëwee da ngay xam ne kan nga koy étudier jàngat ko wut des solution te nit ñi tamit nañ dal buñ nekk di diaboliser état defu ci lu garaaw defu ci lu garaaw état bu sañoon tey di ñëpp am soble mu doy prix bu yomb ci ñëpp te mi ngi ciy def effort yu rëy nag waaw di organiser filière bi depuis boobu ba léegi mais li daal Sénégal yàllaa ci dugal loxoom. li dal Hollande yàlla ay dugal loxoom li nekk Maroc yàlla mooy dugal loxoom donc nañ daal ku nekk jënd ci li nga xam moom nga soxla euh, dina permettre sax ku nekk ñu mën a bañ a bàyyi yàq bi tuuti arrêté yàq bi parce que soble Sénégal nañ koy yàq tamit dafa bari yaa benn méthode bu fi xew léegi soble moom vraiment léegi dañ koy yàq bu baax a baax a baax a baax kon donc nañu yaxanal ku nekk jënd ci li nga soxla utiliser ko ca xam ni soble moom. du dund la rek rënd la ni ko suñu suñu président Senghor bu mag bi daan waxee rënd la donc kon ñu jàppe ko noonu quoi. merci beaucoup kàddu yi am na solo. waaw maa maa ngi di remercier man tamit di leen jaajëfal bu baax a baax merci.